Cheikh Moustapha santal dayab cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci te ka ngaayoo ci Moustapha tëddal nañ nelaw yaa Moustapha ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati lum nan ci mustawa te dal nang nelaw yaa mustawa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati lum nan ci mustawa akub taalibeem yaa ci di wax ne rek eh, daal jàppale la ko ci liggéey bi ci <laughs> xam ne itam ma nga fa nekkal la fa rek <laughs> waaw ñu nekk ay mu waxoon ne nañ la ko indil ah, jàpp jàppalee la ko ci <laughs> yëngu yi rek ci ah, ñaan yàlla nag yëg-yëg bii bu leer bi nga am ci sëriñ bi <laughs> euh, xam gu gu wér gi ak yéene ju sell ji yàlla na ca nga yéene ko murid yëpp ah, yàlla na ci yàlla defal ndam lu ko yàlla na ci yàlla defal ndam lu ko jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke ah. Ah, la ñaanee nga yàgg fi daal <laughs> lool lool lool ca wér lool rek lañ lay ñaan jërëjëf Mbacke jërëjëf yàlla na ko yàlla eggale ci jërëjëf Mbacke jàng ñëpp sax jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf a gën a a santaat bu baax de gën a yaasa lépp lépp ak cant bi jiitu ak gën a bàyyi lu gën a joxe lépp seen gën a sant seen gën a gën a gërëm di gën a am xel mu daal bu baax a baax mbàkki ci yéen euh, tabaarakallaa taxawaay bi euh, yëg naa ko bu yàgg boo euh, soññ la taxawaay bi ab soññ la ci ci ci ci taalibe yëpp waaye nag ñu ngi lay ñaan yàlla gën naa sàmm te gën naa aar gën naa wéral ba nga àggal sa ji seen bi moom xam nañ ko kon nag alhamdulilah yàlla mu ko def bu la xam noonu ñaan ci baaxu sëñ Tuubaa yàlla bàyyi la a ba nga àggal sa yéene liggéey sama ba mu gàttanu laa ngërëmam ñëpp xam nañ ne gàttanu laa ngërëmam loolu moom dinu gën a gën a gën a gën a gàttanu taw sëriñ bi mu di ko gën di jublu di ko gën di sax dàkk ci liggéeyal ko waaw ci suñu lépp waaw liggéey bi suñu lépp la yàlla nu moom mu di jaamam waaye noonu sunu jaamu sax dañ ko ci dañ cay war a fasaale liggéeyale ko sëriñ bi. incha allah boole ko yeneen lañ ci mën a boole. incha allah incha allah. <laughs> la demee incha allah loolu eh, loolu yal nañu sëriñ bi gàttal te wamatal na boppam. amiin amiin jërëjëf Mbacke. jërëjëf ndoxo maa ngi wër tuuba batum aynu rahmatin waxay nuuri daa dem leen dëkkee ki sayqi mustafa ma nga yeesalaa tuuba bi tajdiidi diinihi yërëm ndaw ña magal mag ña moo doon mustafa